asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 19 février 2020 ñu ñëw ak ci yëglikaay yi dañuy xëy nag doore ko yëglikaay bi di sunu làmb tey ci xëtam mu njëkk Balla Gaye numéro 2 la fa teg Gris Bordeaux ak Eumeu seen mu mel ni ki nag yëglikaay bi daal fi mu nekk nii day daa jàpp ne daal semence bi wala boog semeur yi moom fi mu nekk nii day mu ngi nar a am ci jëm ci ñi nga xam ne ñooy VIP wu làmb ji mu mel ni ki nag heure bu garaaf ba daal sone na wala mu yëngatu ndax nag fi mu nekk nii day ñoom seeni combat nar naa jafe ren est-ce que sax danañu bëre yëglikaay bi xëy tey ñëw def boobu gëstu mu mel ni kii nag bu dee diggante Balla ak booy Niang la moom la ko plombé maanaam la ko yàq daal maanaam mooy kase bu rëy daa mel ni moo yàq boobu combat diggante Ama Baldé ak Modou Lo moom maanaam fi mu nekk nii lañ ca xamul dafa bëri lool lool lool lool lool maanaam la ca réer nit ña leer daal da caa des ba ma jëg Eumeu Sène moom dafa juddu dee maanaam daal mor nee na boobu combat Gris Bordeaux moom lépp juróom fukki million moom lay laaj nee du laal juróom fukki million moo tax yëglikaay bi daal na dolli ca ramadan bi nga xam ne maanaam weeru koor bi nga xam ne nii jàppal avril lay commencé korite ga di mai buñ ca jógee nag jëm ci fin saison ba nga xam ne le 31 juillet ca la saison ba ma nga xam ne nii dañ ko arrêté Gaston Mbengue ak Aziz Ndiaye ba nga xam ne ñoom itam maanaam daal dañoo dellu ginnaaw wala boog ñu retraité ca mbirum làmb ja duubalees daal moo tax muy wax ne day li leer ba leer sax promoteur moom dafee amatul mu mel ni kon loolu lépp boo ko dajalee daa mel ni kon mbër yu mag yii dey ren seenu bëre moom des na ko lijjanti ndax dinañ tooyal seen i xaftaan bëre seeni rak moom ñu ngay bëre ña bëre woon ci semaine bi nu génne wala weekend bi nu génn muy caatu yof ak bébé julde moom yëglikaay bi ñëw na ca combat ba ak xaas ba ca CNC jot a dagge mu toll ci trois cent quarante quatre mille cinq cent francs yëglikaay bi ne na loolu lañ jot dagg la ci bés bi nga xam ne moom la ñu génne woon bu fekkente ne ki nga xam ne moo di caatu yof la moom la ñu ko laal jàppal yëglikaay bi ñëw na ca toll na ci cent mille francs yoo xam ne daal tegal na ka nga xam ne ni waa moom caatu yof daal cent dix mille francs dagg nañ ko ko ka nga xam ne mooy Usu Njaay ñu dagg ko la nga xam ne ni moo di cinquante mille francs yëglikaay bi xëy ñëw tey dinu ko wax mbokkam ma nga xam ne nag ñoo bokk fuñ dëkk wala njegeñante muy xeeru ngor deux moom ginnaaw ba mu amee ndam ci kaw boo yëmbal léegi nag antibacri ndakaaru wala tafambar bu parcelle ñoom la sampal ndën jàpp na ne daal ñii moom dañoo war a ñëw bëre ak moom saara moom di ab xale nekk fa nga xam ne mooy ca parcelle ginnaaw ba mu amee ndam ci ba bat leen sikki ak mbay seen deux saara itam ñu mu teg bët mooy ki nga xam ne nii moo di mor kankang ak albarka kayre albarka yéenekaay bi tamit ñëw na ca moom mu mel ni keneen keneen koo xam ne nii moom wala ñeneen ñoo xam ne nii wala nag koo xam ne boog Ali Diop lañ koy wax moom nekkoon ancien sémino ba tey itam nekk amateuru lit moom nag daa jàpp ne daal Alioune Sarr bu tekkee ndombom tànkam ki ko mën a remplacer jàpp na ne kenn la muy Mouhamed Ndao Tyson moom Ali Diop loola la gis ba xëy tey ñëw dina ko wax leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom moroomam Yaxya Jóob Yékini la wala boog muy moroomam Mohamed Ndao Tyson muy Yaxya Jóob Yékini Yékini moom yëglikaay bi daa jàpp ne day moom mooy ambassadeur waa séemi maanaam couverture maladie universelle ndax nag lu toll ci deux mille cinq cent carnet daal séddale na ko fa nga xam ne nii mooy ca Joal ak la ko wër loolu yëglikaay bi nga xam ne moo di record a xëy ñëw tey dina ko wax mel ni ki fi mu nekk nii moom làmb ja jax na lool rawatina ki nga xam ne mooy bébé Saloum ak ki nga xam ne ni moom moo di Franc ñoom ñaar nag loo ci mën a dégg daal seen combat fi mu nekk nii moom ci tàngal ku dëgg dëgg dëgg ca la ñu toll am na koo xam ne moom mu nga biir Leewtoo TV di fa wax ay soxlaam muy caatu yoof ginnaaw ba mu daanee bébé julde caat nag na leer ba leer daal moom jàpp na ne moo xam double moteur la Modou antaak gargaak keneen ak keneen ku mel ni ne na ku ci ñëw mu lekk avance am double moteur sax moom daa jàpp ne ab ragal la moom caatu yoof nag moo ko wax waaye kii di Balla Gaye moom caatu yoof daa jàpp ne ak lu waay mën a waxati waxati caatu yoof ne na Balla Gaye 2 moo daq bëri ci làmb ji loolu nag waxi caatu yoof la du samay wax vidéo baa nga Leewtoo TV fa la waxee wax ñu toll noonu yàgg maar. mbokk waa Leewtoo TV ñu leen di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen eh, ak yéen si jàngatu arène Babacar maa lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk rek si àddina bi ñu leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si ñoom bu baax a baax. Amin Babacar ñu ñëw nag ak sunu laam sunu laam dafa xëy nag ne nee na fu mu nekk nii VIP nag seen euh, l'heure est grave pour les VIP ndax soo moytul ñoom ñëpp kenn du si takk ngem ren ku si mel ni Balla Gaye ak booy booy Niang moom nee nañu combat boobu du am ndax problème gros cachet moom mooy nee na combat nga xam ni à plusieurs inconnus xamul nagam dina am neewul xamul dina am wala boog du am ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux moom mi ngi laaj cinquante millions Bombardier ak Eumeu moom nee na combat mor ne mor ne mooy naan mu nu mu juddoo rek noonu noonu la deewee nee ñu nag soo mosul saison bi euh, ji waaw lu doy waar la parce que tamit xam nga li ci solo mooy kan yi daal ah, euh, loolu moom baaxul si lamb parce que bu ñu soñoon tey mbër yooyu ñu lim bi ku ci ne di ak nga xam ne moom la lamb booleel mais nag ak situation bi ni mu demee nii ak noonu ñu ko waxee yëpp defe naa li ci liñ ci mën a dindi dina jafe te loolu su demee noonu pour ñoom ñu bëree moom dina jafe lool ci ñoom ren parce tamit comme ni ñu ko waxee koor gi mu ngi ñëw avril la korité mais après nga te yaakaar foofu dana xaw jafe trop sans compter nag promoteur yoo xam ne tey doon nañ def yenn seti grande affiche yi muy ay Gaston ay Aziz Ndiaye ay Ligue Nicolay tey Aziz ak Gaston gisatuñ leen Ligue fi mu nekk nii tamit mu ci loo xam ne nii tey ñu ngi ko ñaanal yàlla vraiment. Babacar combat bu amoon nag euh, dimanche bi passé foofu si arène nationale nee ñu CNG moom jël na ki nga xam ne mooy euh, caatu yoof ak ki mu doon bëree parce que trois cent quatre trois cent quarante quatre mille cinq cent Babacar. waaw muy xaalis boo xam ne dagg nañ leen ko loolu nag des fois li koy faral leen di xëy na wàcc yoon lay doon rek xam naa ne ñàkkul lu ñu def ba tax ñu dagg leen comme lam ji daam ay règle waaye daal xam naa ne mbir mu ci nekk booy bëri del veillé ci loolu ndax bëri ba pare tamit war a jëm jëli sa reliquat dem doo fekk dara wala nga fay fekk yoo xam ne nii mooy loolu dafay xaw a metti te lamb daa metti li nga wax aussi en euh, lu simple aussi ki nga xam ni mooy ordinateur moom daal nee na si trois gala yu mu participé yëpp loolu yëpp jël na ko moom moo ko moom moo ko gagné Babacar. waaw loolu de wax naa ko fi weekend pass bëri ki démb rek lundi yaakaar naa ne euh, samedi fële la njëkkee nu mu tuddati ñaaxar la njëkke jóge ca euh, dem ci lor jël ko jógewaat fa jël bag bi dem Foundiougne jël ko loolu moo lay wan ne moom itam vraiment mu ngi wane boppam daal bu baax a baax te et noonu la sportif la toll na ci na bëre lii sa wërsëg nga di ko gagné. Aly Diop moom mi nekkoon ancien cheminot ak amateur de lutte moom nee na lu mu gis daal moom nee na Tyson mën na ki nga xam ne mooy président Alioune Sarr ah, li nga xalaat ak li na personnalité Tyson ak euh, xam-xamam ak la teg wax li mu wax ah lu la olof di wax waaw bu ci kanam xam ndax Alioune Sarr bu fi jógee kan moo ko war a mën remplacer mm-hmm. waaw. suñu jógee nag suñu lamb dañuy dem fi nga xam ne record si xalima abonu sekk naak waxtaan bu yaatu ak Anta Samb mu nga xam ne moom dong moo am médaille foofu si championnat d'Afrique yu amoon Alger moom daal lu mu gis daal mooy nee na euh, euh, mëbëtam yëpp suwem yëpp mooy ni yëg si kaw euh, podium olympique maanaam am médaille olympique Tokyo 2020 2021 foofu noonu avant muy bàyyi bëree Babacar yàlla na ko yàlla dimbali ba mu réussir ko Anta Samb suñu jaam la ñun séeréer yi parce que joolaal xam naa daal joolaal te joolaal day faral di ne koy ñaanal yàlla jeux olympiques yooyu muy wax Tokyo 2001 2021 boog du yàlla na ko yàlla dimbali ba mu réussir ko ak bépp Sénégal bu fa dem défendre couleur réew mi aussi ni ñuy xamal aussi euh, si record toujours nee ñu Yékini mi ngi léegi si social bi ginnaaw bu mu bëree ba bàyyi boy di organiser ay làmb léegi nag mi ngi si social bi nee moom lañ nommé ambassadeur CMU euh, CMU nag soo leen ko déggee mooy couverture maladie universelle nee na week-end bi passé mi ngi woon Joal may na fa 2500 cartes Babacar waaw loolu am na solo trop parce que social moom lu am am solo la te itam Yékini comme li may wax rek man daal fi mu nekk nii ma gis mu taxawee ko moom man Babacar boog bég naa si trop trop trop parce que lu tax mooy dund maanaam ñëw na si làmb nekk mbër bëri ci ba yàlla may ko ci lim ko war a may tey mu bàyyi làmb jooju retourné waat di teg ay millions ci régions yi ak département yi mbëri di ko bëri di gagné tey mu ñëwaat. nekk ambassadeur couverture maladie universelle du CMI jël ay plus de 2500 cartes joxe ko ay doomu aadama defe naa loolu moo lay wan ne kon moom daal fàttewul li nga xam ne ni moo ko def li mu doon waaye fàttewul tamit ñi tax loolu am te ay doomu adama rek la parce que nit ki amul loo mën a doon ci àddina lu ñi la ko def ci kaw ci kaw ndogal suñu borom parce que yàlla day dogal ba pare nag bàyyi la ak nit ñi kon Yaxya daal yaakaar naa tey lu ma doon wax rek royukaay la exemple la et tamit la bi nga xam ne daal vraiment dafa mel ni après la carrière làmbam am na beneen vision bu mu am pour Sénégal ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dimbali ba loolu mu réussir ko yaakaar na si kàddu yu rafet yooyu leen tàggoon leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu suñu yaay mère soo nuyu sama doom xam ne mooy Asek chéri Khoudia Seck depuis Italie maa ngi koy nuyu Abdou Gueye depuis États-Unis euh, Baye Fallou jàmm gan papa yi si te nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ne moom mooy Grand Fallou nuyu aussi benn nuyu bu spécial à Ramos Ndiaye depuis Italie naan ko jërëjëf gis naa teranga bi yal na yokk Babacar waaw waaw teranga de am na solo trop mention spéciale loo ci mën di dégg teranga am na solo waaye la ma la waxoon laa lay waxaat rek di ko waxaat sama bopp di ko wax internet yi képp ku ñuy defal teranga ku ne bul bàyyeeku rek ne maa ko yow déedéet la tax ñu la koy defal xam ko nga jéem di nekk ca loolu ndax nag teranga ku la ko lebal nga ko ko mën a fay bu lëppalee alal defal la ci teral la ci alalam fay ko gore ak ngor dafay am solo

États-Unis d'Amérique maa ngi koy bëggee di ñaan daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu allah. waaw ah, dañoo war a bëre ba tàkk bay laal fii liggéey yii <laughs> gàmmu lam daan def bu mu ko bàyyi rek. gàmmu sox.